ñaareelu ponk ci ponki ngëm mooy al imaanu bil malaayka mooy gëm malaaka naka la ñuy gëmee malaaka yi dañuy gëm ni ñoom ay mindaafoon la yu ñu mënta gis duñu fàddu ñu leen gis ak bët waaye dañuy gëm tamit ni ñuy nekk ak ñun lañu waaye mënuñu leen gis yàlla daleen bind ci leer ñoom duñu mooy yàlla mukk di dañ koy topp ci lépp ñoom nag dañuy gëm ni am nañu ay bakken ruux dañuy dund am nañu ay yaram ngir yàlla moo wax ni malaaka yi uli ajnihatin masna wa sulaasa wa ruba dañoo am ay laaf ñaar ñett ba ñeent dañuy gëm tamit ni dañoo am xel dañoo am xel am tamit ay xol parce que yàlla moo wax tamit ba léegi xata ida fuzzi'a an qulubihim ñoom bu ñu demee ba tiit bi génn seen biir xol yi dañuy gëm malaaka yépp gëm tamit ni yàlla lu mel xamal ci ñoom lu mel ni seen tur ku mel ni jibril mikail israfil ak malakul mawt gëm tamit jëf yi nga xamante ne yàlla togg na leen ko ku mel ni jibrail moom la yàlla sant ngir muy dox digganteem ak yonent yi di wàcce kàddoom ci yonent yi ñu gëm seen melokaan ni ñoom duñu mooy yàlla ci lenn duñ leen di gëm ci lépp waaye tamit gëm tamit faram fàcce yi nga xamante ne yàlla tudd na ko seen mbir wallahu aalam